jàngeen jëf tension politique bi xew ci Sénégal moom la yéenekaay yu bëri xëyee tey ji enquête quotidien wax fi Sénégal tollu jamono ji tembe mu gis ni yëfi jar naa tiit ndax gannaaw élection présidentielle bi nga xamante ne ay weer képp ci des gis na ni fan yi ñu dëgmal xëy na sax mooy gën a métti li tax nag muy gën a métti l'observateur def na ci jàngat bu ya yéenekaay groupe Futur Média bi di xam ne ni kon bokk na ci li ko waral kàddu wala sax ay yi nga xamante ne dañ koy faral di dégg ci géopolitique gi lu ci mel ni ñoomi seen muy ay slogan yi nga xamante ne ñi nekk ci géopolitique gi sax dañu koy jëfee Sud Quotidien moom li mu gis ni mooy indi fitna gi bokk na ci li ñuy salfaañe ak ak yeleefu doomu aadama yi maanaam lu ñuy teg loxo ñi di militant yu opposition bi lu ñuy faral tamit di tere ay manifestation yu ñuy amal ba sax presse bi ñu jàpp ni dañu ko noot lii yëpp moo tax Sud Quotidien jàpp ni Sénégal nag ma ngay bëgg sës ndax fii ñu jëm xamatuñ ko moo tax jàngat bi nga xamante ne suñu naataango yu groupe Sud Communication bi def gën a yées li ko ñi ko jiitu defoon ci bopp réew mi ndax bokk na rek li koy findeel ñi nga xamante ne kon dañu leen di teg loxo libération xëy tey ci ñooñee nga xamante ne ñoom la ñu mujj teg loxo bokk na ci Azoura Fall mi nga xamante ne dañu ko du tap mandat de dépôt Assane Fall di turam dëgg mi nga xamante ne kon militant bu Pastef la moom ak Bara Gueye mu ñuy tegee loxo ca Tambacounda ñoom ñëpp ñu ngi ci loxol yoon ñeneen ña nga xamante ne alxames gi wees lañ leen teg loxo ci wàññi ci fanweer ak benn te ñu bokkit ci parti Pastef week-end bi moom ca commissariat ba lañu koy defee dañoo amaat ab retour de parquet arrestation yu bëri ak fitna gu takarnaase lool moo tax ba juróomi organisation panafricaine ci L'As Quotidien di mel ni ñuy artu ci biir yéenekaay bi tamit ONDH mooy sàkku dal ci ñi nga xamante ni ñoo nekk ci géopolitique gi ñi nekk ci géopolitique gi bokk na ci xalifa Sall moo ngi ci xët bu njëkk Vox Populi moom njiital taxaw Sénégal mel ni kuy tàllal loxo ñi nga xamante ni ñoom ñooy socialiste yépp ngir rek ñu mën a ànd ci élection 2024 yi mën cee jëlee ndam bëgg-bëggu Khalifa ci Vox mooy parti yu nekk ci gauche bi daal di lëkkalewaat seen doole mën a àndaat leader yi yeewi askan wi ànd ci vox populi ba tey di ŋàññe fitnal ak xoqatal bi nga xamante ne moom la ñu teg kenn ci seen natango di Ousmane Sonko ñu gis ni njiitu réew mi Macky Sall ci boppam moo fi nam samp li nga xamante ne xel mënu ko nangu étudiant Pastef yu nekkee ca UCAD ñoom nangu ñu benn yoon li ñu teg ni fitnal seen njiit di Ousmane Sonko moo taxit démb source a mu ñuy xamal ni wane nañ ko ci fajar ci ñaxtu ak jàmmarlo yu métti ñu doon sekk ak takk mbirum namuna jàmmarloo ak CNRA daanaka door nañ ko sax ni ki démb Walf Quotidien moo ni xamle gannaaw toogaanub ñaxtu bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal ci màkkaanub groupe bi ci boppam doon ŋàññ coupure signal bi nga xamante ne def nañ ko Walf TV ñi yëngatu ci wàllum tasum xibaar ñu ngay ŋàññ taxawaayub CNRA rawatina état bu Sénégal ci boppam ci li nga xamante ne moo ngi koy def ni nooteel presse bi ci réewub Sénégal acteurs yi yëkkati ci ay kàddu ci biir 24 heures bokk na ci ñoom Ibrahima Lissa Faye bu Cap di wax ni coupé signal ab télévision ci ab ci benn ci ay bis loole lu ñaaw la Bakary Domingo Mané di ko ci feelu gis ni liberté de la presse moom ci Sénégal moom la ñu salfaañee ba noppi Pape Alé Niang tamit yëkkati na ci ay kàddu ndax teewoon na ci toogaanub ñaxtu wi gis ni yenn dogal ak yenn mbir yi nga xamante ne danañ koy jëf ci Sénégal rawatina ci presse bi loole jamono weesu na ko li am ba am Cheikh Niass PDG bu groupe Walfadjri dafa gis ni dogal bi moom weesu na Babacar Diagne ndax état bu Sénégal ci boppam moo nekk ci ginnaaw Macky Sall ci boppu week-end février 2022 ba léegi tribune yéenekaay di ñu xamal ni kon mandaam jeex na ci bopp kuréel ga yéenekaay groupe des média bi mel ni ku koy defal xayma wax ci li nga xamante ne Macky Sall sàkku na ko ci àdduna warngal këpp ngir réew Afrique yi taxaw na tembe ngir xeex tamit li nga xamante ne moom mooy valeur yi Afrique daa di moom li moomee dëkk bi jamono ji tembe bis bi le jour daa da ciy def ab gëstu bu yaa nekk tey ji muy enetam xeetu feet yi nga xamante ne dañu koy jagleel ñuy waaj dugg néegu sëy muy lëmbe dëkk bi rawatina ci réseaux sociaux yi ay photo yu day waar ci xëtam bu njëkk ay soxna di ci wane seen bopp ak ay xeetu pecc yu nekk ñenn ñi sax di ci wane seen cër yéenekaay bi di ci jàngatee ni dañoo jógee ci cosaan dugg ci ay mbir yi nga xamante ne bokk na ci luy yàq société bi ca jamono jooje rappeur bi di Job Sabreng moom dafa fas yéene defar société bi waxtaan wu yàlla la sekk ak suñu naataango yu réew mi quotidien dikkaat na ci xeetu musique bi ko tax a jóg muy fexe ba lëkkalee kilifa yi ak citoyen yi bu ko defee ñuy def lu méngoo ak jamono ngëneelu réew mi gaynde yuy faral di teewal Sénégal ci wàllu football Stade Quotidien dikk na ci seen programme ci week bi bokk na ci lu ñuy xaar Bamba Dieng Iliman Ndiaye Boulaye Dia ak Famara Diédhiou mooy ñu daal di yeewu ci njeexteelu ay bis bi sunu lamb di def ab xayma ak ki nga xamante ne moom mooy Eric Favre ci combat bi wees diggante Bombardier ak Tapha Tine mu ñuy xamal ni koppar yi ñu def ngir organiser bile combat moom daanaka mat na ñaar téeméeri million